c'est la référence. jàngeen euh, jëfati ngeen ñuy toppandi ci juróom ñeen fukk yu tombal euh, benn kaddu gi di àddoo fii ci médina Baye ngeen ñuy teewloo ci ay gox yu wuute te fësantikoo mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm euh, ci ëttu xabaar yi ci kàllaamay kocc ci gàttal bu ngeen loo rek ma jukki leen li ci gën a fës. bokk na ci li gën a fës ci xibaar yi décret bi nga xamante ne nag moo daal di tënk li di njaayum gerte fii ci Sénégal faw rek ñu yeesalaat ko waaye itam daal di koy méngale ak jamono bu ñu nag bëggee ñongal wàllum njënd meek njaayum gerte gi gi lu ni mel nag Modou Diagne Fada moo ko xamle moom directeur général bu Sonacos daañu ko dégg ci biir xibaar yeeg Cheikh Babacar Dieng gannaaw yokkuteefu mbas bi di coronavirus ak variant bu bees bi di Omicron ñoom collectif de développement sanitaire yi nag ñu ngay artu tey sàkku rek ci askan wi ñu jël seen i matukaay dem nañu sax bay wax ne daal bu ko laajee ñu soppi nag anam ba ñuy campagner mbaa sax ñu dàq élection yi ba jëmmi euh, jamono ci jamono joo xamee ni itam tey jii ña nga dëgmal campagne électorale bi euh, ñoom defar sa gox bu ngàcc de mere nañu lool rek préfet bu arrondissement bu Mbadakhoune nee nañu daal bu ñu bokkul ci élection yi moom la li waral tuuma googee daañu ca dikk léegi léegi eh, ci biir eh, xibaar yi bu ñu lépp mbokk yi daañu ca teg seen rubrique eh, jàngandoo ci beneen anam toftal ca xabaaru bitim réew tàggat yaram ak li yéenekaay yi xëyee tey ji mu nekk li gën a fës ci xibaar yi neskis ñu indi ci faram-fàcce Le journal Ngoné moo nekk ci euh, waxukaay gi fego ceeg El Hadji euh, Libas Mbaye ci wàllum xarale gi kàddu gi di àddoo fii ci studio Alioune Momar Lo dañu koy dooree nag ak nañu leen ko euh, junjee xam ngeen ne nag ni ki tey jii mooy fu campagne électorale bi ci Sénégal gépp ci jamono jooju nag waa coalition defar sa gox bu ngàcc de ñoom nag ñu ngay yëglu ci kanam askan wi nee ñu daal bu ñu bokkul ci élection yi du kenn ku dul sous préfet bu arrondissement bu Mbadakhoune El Hadji Tamba Ba ma ngay ci jafe bi ci micro bi bàyyi. tey ñu ñëwoon pour wax ak sénégalais yi wax ak àdduna ci jafe-jafe bi nga xamante ni suñu liste bi moom la amoon depuis bañ commencé dépôt candidature yi ci arrondissement bu Mbadakhoune sous-préfet bu Mbadakhoune dafa rejeté woon suñu dossier la taxoon mu rejeté ko mu ne suñuy couleur dafa nuroo ak yu Benno Bokk Yaakaar yàlla def li code électoral bu wax ci article L 250 ak L 287 loolu su amee ministre bi dafa war a arbitré ministre bi arbitré na changé nañu suñuy couleur jox nañu yeneen couleur Gox ak Benno Bokk Yaakaar amatul dara loo xamante ni ñu ngi koy niroole depuis booba nag su préfet bu Mbadakhoune nangoogul rétablir suñu liste nangooguñoo réintégré ba léegi noonu ba tax na ci kaw loolu ñuy lancer un appel ñi nga xamante ñoom ñooy ay kilifaam direct commencé par le préfet du département de Guinguinéo jógee fee jàll ci gouverneur bu région bu kaw Kaolack xamal leen que ne su préfet bu arrondissement bu Mbadakhoune ba léegi dafa taxaw fi mu taxaw d'après arbitrage bu ministre pour rétablir donc dans loolu nag nekk loo xamante ni daf ñoo jaaxal lool parce que ay citoyens lañ dëkk ci dëkk bi suñu dossier amul benn erreur matérielle lu dul affaire confusion de couleur te loolu ça été réglé ba tax na ci kaw loolu ñuy lancer un appel à autorité autorités xamal leen que ne sous-préfet bu Mbadakhoune jusqu'à présent nangul jàllale suñu liste di fàttali aussi que ne autorité administrative en matière d'élection liggéeyam nekkul di recaler ay candidats di rejeter ay dossiers mais dafa war a encadrer di waxtaan di orienter ñi nga xamante ni ay candidats lañ à que mu mun a organiser ay élections yu leer ay élections yoo xamante ni yu mucc ay te jaare bañ cee am lii daal moo nekkoon li nga xamante ni moom lañ bëggoon jàllale xamal Sénégal yi que ñun ay doomu Sénégal lañ dëkk fi am droit dem élection pour changer suñu commune mais ba léegi sous mu nekkoon nag mandataire bu coalition boobee di ànd defar rek sa gox ca élection locale sax nag ca la ñuy des ak ralliement ya ñu nemmeeku jamono ji ay kàngam yu nekkoon ci parti bii di PDS dem nañu nag ci ginnaaw ma Mademba bi tey ngir jàppal ko tànk Ousseynou Goumbala di kenn ca ñoom micro noa bi ay Ablaye Bari ak Assane Ndiaye ak sama nijaay Aziz Babou ñu waxtaan ci ñoom ñu def délégation dem fekk bité fu fële ci siège am waxtaan ak moom biñ ma ko waxee jox ma bité yi ma wax ak moom ma ne ko ñooñu de samay doom lañ samay xarit lañ parce que bu ma ñëwee Kaolack ñoom laay nekkal kon ñoom lu ñu dugg dinaa leen ca fekk jàppale leen ca ndax duñ ma gën a gore bi ma nekkee ci ñoo ma doon jàppale bu ñu xëyee ñooy nekk ba jant so tëdd moo ñuy tàggat kon lu ñu nekk dinaa ca nekk ngeen xam ne su ngeen demee ngeen wax ñu si bittee mais ko jël nañu engagement jàppale ko pour li muy wut yàlla jox ko ndax yàlla nag mooy fal yàlla na ko fal ñii fi nekk it suñuy dëkkandoo lañ ñoom ñëpp dañ ma daan jàppale di ma nee PDS ñu wax leen ko ñoom it ñu ànd ñëw fekk si ndaje bi lii nag première rek xam ngeen ne politique locale du dajale lii bu ñu fi jógee bis naka tey dañuy jóg di dugg ci kër yi di def porte à loolu mooy local ku ñu dem wax ak yow kii bu yoree département bi lim ci man candidat ci des kenn mënu ko ci moo tax ñu koy jàppale ci leen woo pour ngeen jàppale. Ousseynou euh, Goumbala dañuy des ba tey nag ci gàngoor googee nga xam ne itam dañoo euh, bàbbeeku Abdoulaye Bari nekkoon itam kenn ci responsable PDS yi fii ci euh, diwaan bi moom itamit fekk ji na rek ma Mademba bi tey boole kook di wax li sabab tànneef bi ay kàddoom ak noa bi ay bett. maa ngi bokkoon parti démocratique sénégalais donc ma ki nga xamante ne mooy Ousseynou Goumbala moo nekk aussi un ancien du PDS alors ñu jël moom lañ jëm muy élection locale yi fas yéene see ànd ki nga xam ne moom la ñuy wax Pape Demba Bitèye pour que 23 janvier 2022 ñu gagné li nga xamante ne mooy élection locale yi waaw boo gisee ñu ànd ak Pape Demba Bitèye parce que sept candidats yi nga xamante ne ñu ngi dagaan baatu askan yi waaye boo xoolee ci côté profil ci côté njëriñ ci côté jëfiñ Pape Demba yemu cee kenn parce que Pape Demba bu ngeen xoolee côté éducation tout récemment ñu ngi jëngu ci côté xale yi boo xoolee ci association yi fort bi ñi nga xamante mooy côté donc ñun loolu ñu gis parce que ki nga xamante ne nii bu la joxee ndékki bu la diggee añ kooku am naa yaakaar na war nga kaa gëm donc looloo tax ñun aussi on a pris l'engagement pour jàppale la candidature de Pape Demba Bitèye pour les élections locales yi nga xamante ci lañ jëm le 23 janvier 2022. Abdoulaye Barry neexul ba neexul waaye nag moom Pape Demba Bitèye rek mooy candidat bi gën ci département bu Kaolack loolee nag du samay kaddu kenn ku faroon ak président Serigne Mboup moo ko xamle ëlbatiku yëkk ci ay kaddu jébal ko askan wi Abd Alassane Ndiaye lay wuyoo. léegi ci micro noir bi ay nekkoon euh, fële ak président Serigne Boub ànd nawle tey jii nag ma ñëw pour rallier ànd ak le DG Pape Demba bi tey pour qu'au soir du 23 janvier 2022 mu gagné élection locale yi. Pape lu tax nga tànn euh, Pape Demba. waaw li tax ma tànn ko dafa am deux aspects. à ses réalisations dans le département qui connaît Pape Demba bi connaît ses réalisations dans les ASC dans l'éducation dans la santé et tout ça dama nekk ak samay nawle ak samay xarit ñi ma xam ne mu la daan ku mel ni Abdoulaye Bari grand li nga ragal ñoo yam ñëwal ñëwal mais bi ma defee analyse ak réflexion bi ma toogee ak lépp DG Padoum bi tey xam naa ne dëgg dëgg dëgg moom mooy candidat idéal pour le département de Kaolack c'est la raison pour laquelle j'ai rallié bi tey et Bokk Yaakaar dañuy des ba tey nag ca googulee mbir ralliement boobee nag fekk fi woon rek Pape Mademba bi tey moom nag Baba Ndiaye moo leen tatagal rafetlu seenu ko dëggu boole ko gi tamit woo leen rek ngir ñu ànd liggéey am ndam ci élection yàlla wér ak fan bu gudd mais dañu gërëm xale yu baax a baax monsieur Bari ci clairvoyance bi si alsaan si jom ji ndax xam nga nit bu àndee de fenn ku am jom moo ñi mee ànd fenn ba mu yàgg mu xalaat dafa juum mu taxaw publiquement damaa juumoon génn naa foofu mooy la alsaan def ànd naa ak sëriñ ba dee ba xam ne du yoon baax bi moo ñàkk ñëw taxaw ànd ak fa den bi te yàlla yàlla fay la bari Abdou Aziz fii ngeen ñëw ak àndal nawle la la ñu ànd nawle fële wérul de Pape Demba tey bu amoon jot nga xam ne naroo leen baax a baax a baax dañuy ànd ñu ñëpp di xeex ba yàlla may ñu dem ñëpp amul na kenn koo xam ne nii sa liggéey xeeb nañ ko day ñaan commencé tey bu 23 ndax combat tant gagné gooko bul naagu ku nekk la nga dina ko def sëñ Abdou Aziz Babou képp ku xam ne mën naa voté ak fu mu dëkk si département bi nanga ko mu bisi mu voté gendarme lépp loo si mën ak foofu xam da nga dem mobiliser ko ndax woote électoral rek la bu ku nekk yëngu rek ñu boole yëngu-yëngu yi mu nekk lu am solo élage la ñu def si te solo wut sax yàlla mu la mu ne bu ma kenn Baba Ndiaye ci jamono joo xamee ne nag ña ngay waxtaanee campagne ak i élection moom nag variant bi di Omicron mu ngay lëmbee rek diwaan bi ba tax na nag junjoon naa leen ko CDS yi ñoom jamono ji ña ngay soññu rek askan wi ngir nag ñu jël seen i matukaay waaye itam ba ci gaaru ceer yi dandante wàccoog digle kër docteur seenu ko xalaat sax jamono ji mooy ne nak campagne bi ñu daal di soppi rek anam ba ñu koy defee mbaa ñu dàqandi élection yi Cheikh Tidiane Diagne. mbasum coronavirus toogaat ne mu ngi li nu mel nag tax na CDS takku ba dëgër fas yéene jàmmarloo ko jàngoroy Covid 19 jilee ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngatu ci wàll ka yeete gi ñu ne nag dañoo war a delloosiwaat mesure yi nga xamante ne jëloon nañu ko ci gare routière yi Daouda Bakhoum mooy secrétaire général collectif de développement sanitaire bu Kaolack. garage yeeg ñëpp nañ tegaat ndoxu raxasu yi respecté mesure barrières yi loolu rek mooy xeex bu mag bi amul leneen clients yi aussi même chose nañ fexee di fagaru ak oto yeeg booy dugg si biir taxi yeeg même taximan yi nañ si am fulaak fayda kuy dugg amul masque bu mu dugg sa bakk parce que tey mu wàll coronavirus bi nga toog benn un mois mbala cinq mois mbala sax nga dem xay bu kenn xamul ngir cent cinquante jaru ko kon donc mesure barrière yi même si biir chauffeur yi war nañ mun a wax clients yi ne ku amul masque doo dugg fii. élection locale yi tey la ñuy tàmbali campagne bi mbaboor gu bëri la ñuy xaar ci mbedd Kaolack yi mu ne nag kilifa yi politique yi rawatina candidat yi mën nañu wàññi seen caravane yi ak nit ñi jaarale ko ci beneen doxalin. pour les candidats mun nañ am beneen façon mooy faire une mobilisation par année ça n'a pas de sens day def lu dul augmenter nombre de cas li ñuy proposer mooy nañ fexe candidat créer ay débattons dans les quartiers présenter seen programme moo gën foofu que ñu def mobilisation parce que bu ñu defee mobilisation même suñ forcé def élection yi donc si kanam tuuti ay mille cas la ñuy gis. bu fekkente ne lu ni mel amul nag CDS yi ñu ngi sàkku ci groupe Sénégal bu demee ba mënta ñàkk ñu toxal élection localité daal di koy jàpp ci beneen date. su fekkee ne respecté wuñ mesure barrière donc état mu na faa jaar sax annuler élection yi coronavirus bi amee doole pour que élection yi mun am il faut ñu respecter mesure barrière sinon nit ñi mun nañ fa làqatu aussi tamit parce que élection day dajale mbooloo ñëpp gis nañ rang yi am si élection yi rassemblement la te coronavirus dafa bañ rassemblement. collectif de développement sanitaire banqaas gi fare ci diwaanu Kaolack rafetlu nag taxawaayu yenn entreprise yi ñu jàpp ne mesure barrière yi ba léegi mu nga fa moo xam ci jamono yi mbas mi wàññeekoo ak jamono yi nga xamante ne omicron am na ñu ko am ñu bari ci capitalu Saloum. jaajëf Cheikh Tidiane Diagne yokkutee fukaay yi nag jamono ji uh, dara waralu ko rek lu dul nag uh, bàyyandiku bi ñu nemmeeku ci réew mi rawatina fii ci uh, diwaan bi mu laaj tey jii ñu soppiwaat doxalin bu ñu bëggee mucc ci variant bi di Omicron Daouda Bakhoum moo ko xamle mi ngi ci micro Cheikh Tidiane Diagne. ñëpp jàppoon na ne coronavirus bi jeex na boo takkee mag sax bu ñu la xoolee dañ lay retard loolu moom moo ko si dugal ah. c'est-à-dire que les mesures yi nga xam dañ ko waroon respecté moom la ñu respecté wut dem ba si digg bi commencé baisser les moom moo tax moom mu dugg si waat des autorités mesure yi ñu jëloon au l' aéroport yooyu yëpp dañ koo mujj bàyyi donc mun na jaar aussi par les étrangers en même temps. Euh, lu ngeen di proposer tey ngir euh, mu yem fi. le respect des mesures barrières amul beneen secret il faut que aussi autorités yi jàpp si loolu population bi aussi jàpp si loolu parce que euh, mbas mi la mu yóbbu ba mu ñëwee ba tey dafa bëri ni muy wàllee ak moromam dafa yomb daanaka mun naa wax ne li ñuy dundee yëpp coronavirus bi foofu lay jaar yi yëpp commencé di jël changer comportement gis nañ ne coronavirus di nga xam ne moom lañ nekkoon ba taxoon mesures yi gën a mun a éliminer coronavirus bi. am ngeen chiffres yi Kaolack mais au niveau général moom lañ am parce que fii une semaine yii rek presque 347 contaminations am na ci biir semaine bi mais aujourd'hui je pense bien que am nañ 519 cas au niveau national donc ça ni muy gaawee en moins de une semaine ñu am ay 307 cas parce que bañ ne génn mu ngi wàllante waat ak léegi nii génnagul une semaine yi te tey jii may wax ak yow am na 519 cas te test yi tey génnagul donc ça veut dire que ni muy évoluer am na doole boo xam ne cas yi daal bëri na mais au niveau de Kaolack gis nañ ne contamination mi ngi commencé parce que commencé nañ sax di ne dañuy commencé ubbi fi nga xam ne fa lañ war a dalal ñi nga xam ne coronavirus bi daf leen dal kon ça ngi yokk te ni muy yokkee nag kon changement de comportement moo ko mën a dindi. yéen yi ci Alfayda 90 point 1 ña nga ca taaxum kaw ma ñu duppe Cheikh Imam Assane Cissé ñu jóge ko nag ci mbas me bi daal di rek ci campagne bi nga xamante ne mi ngi soxal wàllum gerte gi ëpp na benn weer ñu koy amal waaye tey jii rek la jafe yi gën a wulee ñaay coowal abattement itam daal di juddu ci diggante l'opérateur yeeg waa Sonacos moom nag Modou Diagne Fada daal la mu xamle mooy ne rek li mën a jooyanti mbir mi mooy nag ñu yeesalaat décret wu 1975 bi tënk fànn wi Cheikh Ababacar Dieng. campagne ñu jël rek njaayam gerte mi bañ ko tàmbalee léegi léegi fi mu ne weer wi teg na waaye jafe-jafe yaa ngi wéy di am ba tey jii bi ci gën a fës nag dellu si waat na mooy diggante opérateur yi ak Sonacos. abattement moom chaque année mooy coowul diggante opérateur ak Sonacos. directeur bi ci boppam di ko fàttali lii lépp nag la ko indi acteurs yi yëngu ci wàllum gerte jàpp nañu ne ñu cartaa réewum Sénégal tëralee njëndum gerte jamono yooyu fañ ko weesu fi nekk nag faw ñi indi ak yeesal ci décret bi ngir gën koo dëppale ak jamono Modou Diagne Fada mooy directeur bu Sonacos. décret te ñoom waxtaan nañ ci d'accord nañ ci décret bi tënk njaayum gerte moo dëppootul ak jamono décret bu nga xam ne depuis 1975 lañ ko signé woon décret boobu dëppootul ak jamono maanaam décret boobu ñun d'accord nañu ne dañu war a soppar ñi décret bi pour dëppale ko ak jamono buñ ko defee rek problème abattement coow li mën naa bañ a amati ay point de collecte yoo xam ne at mu nekk Sénat taxaw seen digg ak yi ba ci ministère agriculture ak équipement rural ne diwaan bu ne am na temps de seko waaye ci ko ndax amul dox comme ni ñu ko santaane lii nag mooy indi jafe-jafe yi dëgg-dëgg ci Sonacos ndax gerte gi kenn du ko taaraar wala boog point de collecte yi nga xam ne seeñaa moo leen di taxawal ñu yóbbu fa taaraar parce que ñoom li ñuy wax mooy fa ñuy jënde duñ taaraar moo tax bëgguñu ñu taaraar leen fii mais bis bu ñu fekkente ne fa ñuy jënde taaraar mën na fa am ñoom bala ñoo jënd gerte gu set la ñuy jënd bu ñu ñëwee fii gerte gu set la ñuy jox donc loolu tamit la pour ñu éviter coowul abattement parce que de toute façon il faut trouver une xam ne chaque année dafay indi ay coow ak ci wax ci diggante opérateur yi jamono ji nag ñu laam laam-laamee naan nguur gi teggi na taxe yi nga xam ne moom la tegoon ci ñuy jënd gerte gi di ko yóbbu bitim réew maanaam njaatige indien yeeg chinois yi waaye taxagut ba tey mbir yi jooyanteku ndax ñoom ñooñu le dafa am beneen taxe douanière boo xam ne dañoo bëgg nguur gi teggi lépp ngir ñu mën a wàcc ci njëndam gerte mi Cheikh Babacar Dieng njaayuma gerte gi nag ak lënt-lënt yi ci am ñoom béykat yi nag l'opérateur yi la lañu cay duut baaraam ne nañu itam Sonacos atam ren ji def na ay jéego yu am solo waaye tamit jaare ca rek daal di woo nguur gi ngir mu taxaw taxawu leen Ibrahima Badiane ma nga cay indi ay eh, ne réew mi jaxasoo na fi ñu toll nii jaxasoo bi nag li ko def mooy gars yi fi ñuy waxee ak fi mu amee moo benn ndax boo seetloo yi ñu ngi jëndee kilo gerte deux cent vingt cinq franc ci àll bi loolu nag dara waralu ko lu dul bëgg-bëgg parce que tey ku nga xam na ne Sonacos marge bi mu def ren mosul am ci réew mi amul benn usine bu mos a teg marge bi Sonacos teg ndax dafa référé wu ci prix saignant def marge am jox ko opérateur yi muy daanaka juróom-benn fukk yu manqué tuuti kon ñooñu waroon nañu am ngor bu ñu demee ci àll bi jënde ko deux cent cinquante mille prix officiel waaye dañu préféré ñëw nag jox ko ay baana baana ñu jëndal leen ay deux cent dix deux cent quinze ñu dellu dugaat ci circuit officiel bi yóbbu ko Sonacos jaay ko fa loolu nag ñuy interpeller chef de l'état pour que loolu mu taxaw ci taxaw ci pour que béykat bi nekk ci jàmm tey boo duggee ci àll bi bari na yoo xam ne ñu ngi seen gerte waaye gisuñu fu ñu ko mag moo ci ne man Sonacos mosuma ànd ak ñoom daaw ba léegi fu ñu waxee mën nañ bay exportateur yi ñu ñëw mais exportateur yi bu ñu ñëwul sax nit day wax dëgg rek te yàlla tax ndax xam naa ne Sonacos moom amu ci part de responsabilité part de responsabilité yëpp opérateur yi la te opérateur yi nag war nañ xoolaat seen mbir man daal loolu laa am lu may wax ci campagne bi leneen mooy ñu ngi naan exportateur exportateur yi ñun bëgg nañ ñu ñëw nañu ñëw kenn terewul leen waaye nag ñoom li ñuy jàmbat moo bëri parce que fret lañ doon wax wax nañ aussi li nga xam ne moom lañ leen ay teg ci kilogramme gerte ak taxe douanier bi nee nañ loolu bu ñu leen ko dindi lay ñu ñëw dama xalaat ne nag président moom moo war a xool xam ne li mbooloo bi li ñuy laaj ay douane ak ay taxe ak ay nangam mu def ngir yàlla ba ko bàyyi leen ñu dugg ñu mën a sauver campagne bi sinon campagne bi gis naa ne béykat bi dina nekk ak ay bon impayé dina am ñoo xam dañ yore seen gerte duñu am fu ñu ko jaay. Ibrahima euh, Badiane bu weesoo nag béykat beek l'opérateur yi euh, Sonacos itam ak l'opérateur yi la ñu war a saafara ci seen ak na ngir nag tëral ak déggoo ci wàllum abattement toogayub waxtaan Modou Diagne Fada directeur général bu Sonacos mi ngi ciy jokkoo ak Cheikh Babacar Dieng. xam nga ñoom wax naa léegi suñu partenaire lañu buñ paree fii daañu dugg fee ca ruq ba nu waxtaan déet kenn ko fekkee mais xam nga abattement moom at mu jot mooy waxtaan wi dox diggante opérateurs yi ak Sonacos ndax man gëm naa ne ñoom opérateurs yi bu ñu sañoon gerte gi du am suuf mais ñun tamit bu ñu sañoon gerte gi du am suuf at bu jot nag suuf si gars yi dañ koy puusante am na suuf su xam ne mënul ñàkk parce que gerte moom fala budd dina ànd dina ànd ak ngooñ dina ak ay bant impureté moom moo tax at ñuy waxtaan ci benn taux de tolérance bu nga xam ne ku ci àggul kenn du la abat maanaam boo ci àggul abattement du am ndax xam ne gerteeg impureté moom ñoo ànd taux bi nga xam ne moom laa fixé benn poñ la ak juróom-ñett 1 li am ci suuf wala ngooñ wala impureté àggul 1 point 8 kenn du la abat bu ko rombee nag ñu abattre donc pour le moment foofu la ñu léegi nag ñun daañ dem fee ñu waxtaan suñu biir non waxtaan bi lu seen yoon ba ngeen koy fekkee euh, léegi ñun daa dem waxtaan suñu biir mais li may fàttali rek mooy euh, njëggu baax mooy li ëpp solo te njëg gi nag moom ay waxtaan la ak suñu biir partenaire ndax ñoom fu ñu ma sa waxtaanee rek daañu am consensus bu nga xam ne moom la ñuy téye incha allah waxtaan woowu dana dox. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point 1. ñu wéy eh, ba tey ci ma xabaar yi ci kàllaama kocc ci yaatal daal di tàbbi rek ci wàllum njàng ak ak njàngale institut islamique africain américain bu Cheikh Imam Hassan Cissé nag foofee daal njàng mu am solo nag moo fa am lii firnde bi itam mooy ne ab soxna bu ñu jël nag muy dawal rek lii di train express régional bi moom nag fa la daal di amee bac ci atam 2015 ña nga ko doon sargal ci njàmbaarteem El Hadji Ibrahima Niass directeur des études ba mi ngi ci waxtaan ak noa bi ay sant yàlla bu tool bi di gërëm imaam radiyallahu anhu ci kado bi mu jox doomu jullit ñi ñuy jàng waaye ñi ngi koy gën a gërëm tamit système bi mu fi teg nga xam da ngay jàng langue arab nga xam ne mooy langue l'islam mooy langue diine waaye nga jàng islam tamit te kenn mënu koo dégg jàngoo arab gannaaw gi ñu dugal ci français parce que réew mi réewum français la administration français lay làkk moom lay bind bëgg a liggéey bëgg cee jëfandikoo fokk nga man ko mu def am bac dem département arabe dafa jàng anglais ak français ak arab ba am licence am duggaat ci ay domaine terre bii nga xam ne son excellence monsieur Macky Sall moom la fi jëmbat Dakar mu bokk ci ñi nga xam ne jël nañ ko mu bokk ci conductrice yi yi nga xam ne ñooy dawal train bi di ko jëlee dakaar ba jëm ñaajo en pied légalité ak góor ñi wax dëgg yàlla am ñun gis ko ci journaux yi mu ne ancien arabisante la boo xam ne devenir conductrice muy terre bi ci njëmbatal imam bi ci mboolem jàngalekat yi ak bu ñuy xool résultat école ñuy xam na wala jàngale bi baax na dañuy xool ñi fa génnee luñ mën ban compétence lañ man ndax ñi mën nañoo intégré wu ndax mën nañoo bokk société bi ndax mën nañoo liggéey ci état bi ndax mën nañoo nàngam ñu foogoon ne arab bi tari alquran la rek baax na lool tari xadis baax na lool rek waaye yemul foofu waaye nekkate ku fi génnee man ngaa intégré wu léegi léegi nag école arab yi ubbeeku na macha allah fi la jógee institut islamique africain am na Medina Baye la war doon ci la am des ak moom ba tey nag directeur des études ba euh, jaaree na ci itam daal di wax ne rek doon jigéen nag a tax nga daal di euh, yàccaaral waaye tamit daal di soñu waay juri rek ngir ñu gën a sawarloo njàngum jigéen gunge leen ba ñu am ci lu ñu téye El Hadj Ibrahima Niass ba tey ak noa bi ay yóbbal bi may yóbbal mooy Wolof Njaay wax na bu yàgg góor baax na jigéen baax na man li ma seetlu même ci école publique yi ndax man maa ngi fa ci génération dix ans yu mujj yi jigéen ñi ñoo gën a farlu ñoo gën te résultat yi ñuy am léegi ci école publique ci bac bi bari na jigéen ñuy nekk kanam de bëri a dem moo tax loolu li may lancé nag mooy jigéen ñi jàng arab ci école institut islamique góor góor a lu ñuy kaas lu ñuy doole ci xam-xam rek la su jigéen bëggee em góor pay bëgg em moom place bëgg em moom nomination mooy jëf bi rek mooy jàng bi kon nañuy góorgóorlu suñu jigéen yi ku ci am doom bu jigéen nga gis ne jub na topp na sa ndigal mi ngi dem école di ñëwul di jàng gëm njàng mi encadré ko mu jàng xam ba ëllëg yonent bi am na lu mu wax ci jigéen sallallahu alayhi wa sallam ku ñu yàlla jox doom bu jigéen nga yar ko jàngal ko toppatoo ko am na lu ñu ci digde kon xale yi jigéen bu jigéen buy jàng na nga ko garder ba mu jàng ba pare bu ko mayee nag eh, ba tey ci wàllum njàng ak njàngale ñoom nag waaye juro yi faree ci bi ña ngay woote tey sàkku rek ci askan wi ñu daal di bàyyi nag eh, bind ak taf yee ñuy taf rek ci l'école yi mu soxal nag campagne beeg élection yi ñu eh, dëgmal ndaxte itam la ñu xamle mooy ne lu ni mel amalul benn njëriñ élèves yi lu dul yàq seenu ko ak nekkin Alphonse Diegane Thiaré mooy seenu ko njiite ci région bi mi ngi ci micro bi ay li ñuy gis ci école yi rafetul daa boobu taaral bi ek miiri école boo ci jaar ñu ngi ko bind ba mu fees mbaa ñu ko ay affiche électorale ba miir ba fees loolu taaral école yi te itamit loolu ñuy bind ak miir yi ak affiche yi ñooy taf ci miir yi jeexitalam day doon fab xelu élèves yi xelu njàngaan yi jëmmale ko ci leneen jàng nun euh, mag ñuy xëccoo ñooy waxante mbiri politique jëmale ko ci ay euh, jongante waaye ndaw ñi ñoom ñu ngay jonganteeg mbër moo xam ne mu ngay bu te kenn seegul sax muy seen i examen waxuma examen yi ñuy joxe diplôme waaye examen defee ndani sax pour jàll bàyyee ko ci bii classe jar ca bee classe loolu examen la bu ñu sañoon daal nun waajur ndongo yi suñu xëccoo politique ak suñuy bind li ñooy bind ci miir yi ndax di ko propagande suñuy morom mag yu ndax oto yu dul jeex yi ñooy taf ñu seet feneen fu ñu koy taf fu mooy ci école yi ndax comme ni ma ko waxee rek njeexitalu mbind yooyu ak taf yooyu du doon lenn lu mooy fab xelu ndongo yi jëmale ko ci lu dul seen njàng te lépp loo xam ne rek mën naa yóbbu xelu njàngaan xelu xaleel jëmale ko fenn fa dul njàng loola mën na ñëw jàpp ne kasaara la ci xale bi mais communes yi nga xam ne ñoom ñoo yore école yi moo xam conseil départemental bi yore CM yeeg lycée yi moo xam communes yi nga xam ne ñoo yore préscolaire beeg élémentaire bi yore daara yi kon ñoom bu ñu njëkkee di tilimal miir yi nga xam ne ñoom ñoo ko war a tabax xaw ma ñoo ko tabax am déet waaye ñoo ko war a tabax bu ñu ko tabax rek bu ñu ko tabaxut ñoo ko war di toppatoo ndax mu set bu tilimee sax ñu war koy pentiraat bu fekkee ne ñooñu ñoo njëkk di tilimal ah ñeneen ñi waxatuñ leen kon euh, ñuy sàkku ci ñu politiciens yi rek nañu politique ñun waajur ndongo yi ñu ngi leen di déglu ay eh, ca mi ngi noonu ñu daal di dem nag ca diwaanu eh, Touba eh, Mbacké daal di àddu rek jëmee nag ci wàllum yoon gannaaw nag ba ñu leen tegee woon loxo rek ci mbiram njuuj njaac bu soxal defar ay këyit yoo xamee ni itam ma nga rek foofee ca diwaanu Mbacké junjoon naa leen ko nag ci ay bés ñu génn moom premier adjoint au maire baak agent d'état civil ba ni ki alxamis bi ñu génn nag ña nga woon ca kanamu attekat ba waaye mu mel ni fukki fan ak ñett ci weer wi la atte di leer Mamadou Moustapha Mbaye gannaaw ba leen yoon tegee loxo moom Mor Sow di premier adjoint maire bu Mbàkke ak ki nga xam ni kon mooy élage Hadj Lo moom di agent d'état civil fii ci diwaan bi ñoom ñaar tuumaal leen nekkoon dafa am benn kayit bu nga xam ne dañ ko jox benn footballkatu nawetaan defaral ko ko te kooku waru ko woon am fii ci Mbàkke taxoon leen gendarmerie jël leen yóbbu leen fi nga xam ne moom mooy prison bu njaareem gannaaw ba nga xam ne leen a placé sous mandat de dépôt ñoom ñoo ñekkoon ci alxames yi mujj nañu jàkkaarloo ki nga xam ne mooy attekat bi waaye mu mel ni kon maître des poursuites daal li mu wax mooy faaw rek ñoom ñaar ñoo ñee ñu teg leen ay daan yu métti métti métti ñaari atu kaso yu nga xam ne juróom benn weer ya rek la ñu tëdd ba tax kon fi mu toll nii daal ñëpp ñu ngi xaar di ibbi seen i yopp ngir xam dëgg-dëgg ndigam moom Mor Sow danañ ko teg daan yooyee mu mel ni kon Mor Sow nekk na ku nga xam ne fii ci Mbàkke ku nu bëgg la ndaxte ku nga xam ne saa ne gis nañu ne dafay jàppale askan wi waaye nag mu mel ni kon jàppale kooku nga xam ne koy mooy Amar Ka moo ko yóbbee jafe-jafe bii jamono jii ñuy wax yéen ki nga xam ne mooy maire bu Mbàkke mi ngi def kéemtalaay kàttanam ngi wax ne Sow la mu xaatim mën na am ba mu koy defit tayu ko jamono jii ni waxee yéen Mor Sow delluwaat na ca kasu ba mu mel ni alxames fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci atum 2022 la ñuy wax dëgg-dëgg moom Mor Sow ak El lan la yoon na mu ci ñoom Mamadou Moustapha Mbaye Diourbel Alfayda FM ay ayca mi ngi noonu euh, bàkk ba nag miin ngeen ko gaaw bu nekk lay am rek muy seen euh, rubrique jàngandoo ci beneen anam euh, tey jii ba tey nag ma ngay waxtaanee rek wàllum kaso yi ak nekkin bi téye bu yàgg bi wàllum mandat de dépôt yu gaaw yi bokk ci li nga xamante ne jamono ji mi ngay feesal rek lii di kaso yi laaj tey jii ay saafara yu sax dàkk bu ñu sukkandikoo ci maître Assane jomma Ndiaye ci waxtaan ak soxna Ndeye Fatou Cissé. il faut ñu di ay solution structurelle bañ di rek na ñoo xam ne ndogal loolee mën naa dal ku ne jafe-jafe yi nga xam ne tey ñi nekk ci bërëb yooyee ñu dippee ay kaso dañuy wéy di ko jooytu tax nag ba ku nekk war caa jéem a dugal loxoom ba nguur gékk ay partenaire am mën a jooyanti mëtal jéego yi ci lu sax dàkk seen rubrique jàngandoo ci beneen anam tey ci samedi jilee di àddu kon ci li ni mel ñu di ci ànd ak nag ak avocat bile di maître Assane Dioma Ndiaye njiitu kuréel gi di xeex ak ak yelleefu bépp doomi aadama di Ligue sénégalaise des droits humains ak yéen ñi nekk kon ci déglu gi ñu leen di wax euh, dal leen ak jàmm. waaw je pense que bu ñu waroon a cette solution yoo xam ne day sax ñu tuddee ko solution durable il faut ñu njëkkee d' abord ci détention provisoire bi mu bañ a tey yàgg Sénégal parce que boo seetee boo demee ci maison d'arrêt yi tey bu fekkee téeméeri nit mu nga fa xëy na fukk yi wala ñaar fukk yi lañ condamné mais juróom-ñett fukk yëpp dañu nekk ci li ñuy wax détention provisoire maanaam seen dossier dafa nekk ci enquête te paregul te loolu nag li koy indi yàggaayu détention provisoire boobu li ci ëpp solo mooy li ñuy wax en matière criminelle au Sénégal kenn limité wul détention bi bu doonee délit lañ lay toppee fexe nañ ba am ay textes yoo xam ne dañ ne kenn mënu la téye lu ëpp juróom benn weer mais bu fekkee ne affaire crime lañ la toppee te tey xam nga crime viol crime la jaay drogue crime la faat nit crime la phobie yi sax buñ la ciy toppee yenn crime la daanaka infraction yi ëpp yëpp dañ ko criminaliser donc tey bu fekkee ne criminel nga xam ne obligatoirement dañ lay yóbbu ci juge d'instruction bi te loolu amul app day tax ni ñi toog ci kaso yi yàggaay yàggaay boo xam ne ñeneen ñi ñëw dañ leen fay fekk muy di nag beneen conséquence mooy sir surpopulation carcérale wala sir surpeuplement te loolu bu fekkee kaso yi doyuñu kaso boo xam ne dafa doon def téeméeri nit wala ñaar téeméeri nit nga dem ba fay def junniy nit gis nga day indi ay source de tension lekk gi du mën a tee baax dañuy ñuy wax droit à du mën a tee baax réinsertion bi nga xam ne yow boo génnee ndax ku ñu téye kat dañ lay téye diir wante dañu yaakaar ne di nga génn ëllëg boo fayee sa bor ci société bi nga mun a dugaat ci société bi mais loolu day laaj condition yi ngay nekkee ci détention bi mu doon condition yoo xam ne di nga ci jëlee jàngat même boo jàngul woon boo duggee ci détention ba nga jàng fa métier wala nga xalaatal sa àddina boo génnee ndot bi la daloon nga fexe ba du la dalaat mais tey boo demee kaso léeg-léeg la nga fay jëlee moo gën a bon la nga fay yóbbu te loolu li ko indi mooy promiscuité bi bi ni ñuy jaxase nit ñi ni ñu àtte pareegul ñi nga xam ne xëy na ay kayit lañ ak ñi nga xam ne xëy na ndog rek moo leen dal donc dafa bëri problème yoo xam ne pour ñu régler ko rek il faut ñu ay solution structurelle bañ di indi ay taaba taaba. fii la nag la ñu yemandeeg yéen ci seen rubrique euh, jàngandoo ci beneen anam. kon ñun ñi fi des bu ñu yàq liggéey yu ma ñi. yaakaar naa ne lii suñu ko doxalee ñun ñëpp ñu nekk benn parti nekk benn di bokk di waxtaan ci lu jëm ci Sénégal te bañ a jëm ci intérêt personnel. yàlla ne su dara desulee lu dul génn dëgg pour wax ko ngir man. su boobaa. waaye nee na bu boobaa atte leen wala seedeente leen ci dëgg doonte yëf yi ci sa bopp bopp la dal. dëgg noonu lay dox. dëgg noonu lay doxe. waaye réew mi dafa dafa di réewu jamono bi ñu nekk li ba neex ak ki la neex rek loolu du dëgg te loolu kat du dëgg président ak gouvernement bi taxaw tem assemblée bi taxaw tem yépp ñu teg ko ala siratil mustaqim yépp ñu teg ko ci yoonu yàlla wu mokk wi ne coow wuti ngërëmam dig daje beneen yoon incha allah yi bitim réew ay ayca mi ngi noonu yegg si eh, nañu nag ci ñaareelu xaaju eh, xibaar yi eh, jukkim xabaaru bi ci réew yi Cheikh Babacar Dieng la ñu cay àndal maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Seyda. ayca mu mel ni ki daañu dem ci Éthiopie Mali Amérique waaye tamit daal di waxtaanee wàllum Coupe d'Afrique bi lu gën a fës ca Éthiopie. mu ngi jàppal ne ca capitale ba di Addis Abeba nguur ga nag dafa jogal jël dogal admissier ñenn ci ñi nga xamante ni ay responsable politique lañ leen tuddee woon te caabi féete leen ginnaaw ci réewum Éthiopie loolu ko indi moo di jamono jile dafa dafa xaw a am benn salfaañoo gu am ci genn parti ci réew ma am ñu xeexal ne opposant yooyu ci biir kaso la ñuy dimbale ba mu gi sax yëf yi di nuddu ab rébellion ca réewum Éthiopie boo dee ca Mali moom gannaaw ba nga xamee ne soldaari réewum France raxas nañu seen loxo ci dimbale gën doon dimbale takk deri réewum Mali ci xeex ba ñu xeex jihadis yi dippee seen bopp ansaaru diin ba France demee nag waa Russie ñoom ñoo yónnee takk der yu bare bare ngir wàllu askanu Mali rawatina ca fa nga xam ne fa la jihadis yi def seen capital Sénégal moo di ca Tumbuxtu ak euh, ca Gaawa. ca Amérique mu mel ni itam ca Amérique àtte nañu fa wàllum yoon ñetti ay doomi yoo xam ne ñoom ay nit ñu weex lañ dañ leen di tuumaal ne dañ def daal mbirum siisante boddante wante ci wàllu xeet ba am sax ak ku ñuul koo xam ne ni euh, moom euh, turam moo di Ahmed bi moom nag dañu ko dóoroon ba mu faatu ci ay jamono. Mm-hmm. nañ tuumaal ne ay nit yu weex lañ toll ci ñett te def loolu la réewum Amérique àtte na leen démb daf leen a tëj seen giirug dund waaye dafa sécuriser tëj ba ci naka soxna Ngoné mooy ñoom du ñu am liberté anticipée. du ñu am liberté conditionnel li des ci seen dund daal ci kaso lañ koy def. ñu jeexalee ko ak wàllum coupe d'Afrique bi mu mel ni ki am na ci xibaar yooyu ñu waaw ca Cameroun moom foofa jamono jile euh, comme ni melee ci dendoo Afrique yi lu ëpp ñaar fukki pays ak ñeent teew nañu fa seen euh, nañu tànn ngir ñi teewal leen li waajal nag coupe d'Afrique bi nga xam ne ëllëg ci dimanche ji la fas yéene euh, door lii nag dëkk yu bari di ko xaar waaye sax bu dee vingt quatre équipes ñoo fa dajee millions ngi millions ngi doomu aadama ñooy bàqeel Coupe d'Afrique boobu ndax réew mu nekk bëgg nga sëy ña nga yebal indi li nga xamante ne moo di raaye bi mu am ci jamono joo xam ne xii mii ne bëri na lool ndax nit ñi dañoo jàpp ne coronavirus bi mu ngi def lu jara doyul waaye Cameroun googale dafa sëq ak Mali ak Niger ak dëkk yu bëri yoo xam ne dafa am wàllu jihadisme moo tax kaaraange daal moom bokk nañ ci la ñuy waxtaanee jokko njal Cheikh Babacar Dieng ci ma xabaar yi ñu wéy ak tàggat yaa xam ci yaram ay ca bàkk bàngoo ko ñu dugg nag ci tàggat yaram laata ñuy sóobu rek ci yoonu Cameroun gannaaw ba ma la nuyoo Serigne Moussa Kane Ngone Ndiaye maa ngi lay fay te nuyu bokk auditeurs yi dina ñaanal jàmm di ko sàkk ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu koy doore ak football juróom-ñetteelu bëccëg Ligue ak Ligue 2 tey Jaraaf mooy daal ak Njàmbur bu ñeenti waxtu jotee ba tek fanweeri simili AS Pikine di daal excellence ci boobu lay waxtu Casa Sport di dalal waa AS Douanes Mbour Petite di daal ak Tëngéej FC Linguère di dalal waa Jàmbaar bu dee lu soxal Ligue 2 bi nag Kër Madior mooy dalal waa Thiès FC bu ñeenti waxtu jotee ba teg fanweeri simili Renaissance dalaale ak jamono bu Fatick Port dalaale ak NGB bu ñeenti waxtu jotee ba teg fanweeri simili ginnaaw bi ñu taskatu xibaar yi nag ci seen makkaan Ligue sénégalaise bu football professionnel jël nañ ab ndogal nag daal di li nga xamante ni moom mooy championnat bi ginnaaw bu juróom-ñetteelu bëccëg bi jeexee nag li ko waral moom mooy Coupe d'Afrique des Nations bi bu ñu sukkandikoo ci kàddu vice président bi ñu dina dooraat juróom-ñeenti fan ci weeru février ñi ngi woon fii ci Kaolack nag ñii di waa direction technique nationale ji yore wala mu àndu bool ci Sénégal nag ak seen jiit la nag di Mamadou Youga Dieng bi nga xamante ni moom mooy directeur technique bi nag ci wàllum àndu bool li tax ñu tànn Kaolack nag ngir amal fi ab stage dellusiwaat na ci. suñu teewaay fii ci Kaolack mooy euh, jéem a dajale xale yi nga xam ne defoon nañ benn euh, détection boo xam ne bi technicien yu direction technique yi dañoo wër presque Sénégal dem ci dëkk yëpp xool xale yi xool ñi nga xam ne am nañu 18 18 c'est-à-dire que ay 18 ba 18 ans ak ñi nga xam ne am nañ ba 20 ans donc euh, ay góor yoo xam ne donc ñooñu lañu dajale ñu gis nag ba xam ne yaa am yaakaar ci ñoom ñooñu lañ dajale kaw pour def benn stage pour xool ci seen biir ñan ak ñan ak ñan maintenant la pour euh, ñu préparer challenge trophée bi nga xam ne war na am euh, la ñuy wax Bamako ça c'est mois avril bi di ñëw ci lay am mais ci diggante bi nag Kaolack moom comme que dafa nekk a yomb Saint-Louis foo munti jógee ci Sénégal Tamba ñëpp ñëw Kaolack moo gën a yomb moo tax ñu ne bon kon nañ ko def Kaolack Kaolack itam boo koy seetlu itam euh, dëkku an bal voilà loolu daal moo tax ñu ñëw liggéey si fii biir si euh, euh, biir biir Kaolack. xam ngeen Sénégal ba ngay waajal Coupe d'Afrique des Nations ci jigéen ñi ci wàllum handball nag Mamadou bi. moom fi mu toll mooy nekk fi ne nii ñu ngi ci phase bu ñuy wax ne phase administrative c'est que club yi fi nekk nii ku a def ay mutation parce que championnat bi ren dañ ko bëgg a teel a démarrer bu mois de novembre décembre bii euh, que xam nga boo nee boo nee fukki weer wala fukki weer ak ñaar dañuy foog ne lu bëri la mais bëriwul parce que balaa ngay toog tuuti rek euh, mu yegg si moo tax ñu bëgg a teel a championnat bi pour euh, loolu nga xam ne war na am fii ci Sénégal war ko mun a préparer bu ñu paree championnat bi rek mun a mun a toppatoo léegi mbirum euh, coupe d'Afrique des nations boobu. national 1 suba nag AS Saloum dina dalal fii ci stade Lamine Gueye ñi di waa gendarme bu Dakar bu ñeenti waxtu jotee ba teg fanweeri simili. faneeru édition bekk ñetti coupe d'Afrique des nations xam ngeen ni suba lay door bu ñeenti waxtu jotee foofu ca Yaoundé Cameroun mooy laale ak waa Burkina Faso ci ñaareelu jongante bi nag bu juróom-ñaari waxtu jotee Éthiopie di laale ak Cap Vert foofu ca Yaoundé foofu la ñuy des sax ngir dem ci li nga xamante ni moom mooy yoonu Cameroun. leen ak jàmm yoonu Cameroun à l'affiche Cameroun 2021 faneeru édition bekk ñett ñaar fukki équipe ak ñeent war a xëccoo nag trophée bi gën a prestigieux ci football africain ñu fas yéene ànd ak yéen xamale leen ak équipe yooyu ñu tas leen ci ay groupe tey nag yoonu Cameroun à l'affiche yoonu Cameroun à l'affiche yoonu Cameroun nag mi ngi banqaasoo ci fédération gambienne bu football seeni football ñu leen di woowee ay Scorpions benn phase finale dong la am ci coupe d'Afrique des nations ci atum 2021 muy guléet ci taarixam ci wàllum football jeexalee ko ak réew Mauritanie ñu leen di dàkkantele les Mourabitoun di ab boo xamante ni am na ci ancienne dynastie mauritanienne bokkoon ci almoravide yi ñu leen tënk ci fédération mauritanienne de football réew Mauritanie daal di bokk ca coupe d' afrique des nations atum 2019 di seen participation bu njëkk ñaari phase finale ci coupe d' afrique des nations ginnaaw ba ñu leen éliminé ci wërngal bu njëkk ba Mauritanie nag dina laaleeg réewum Gambie di ab derby fukki fan ak ñaar ci weeru janvier bu juróomi waxtu jotee. li ci yéene kaay yi. kaay yi. L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf. gën a fës ci i kaay yeeg El Hadji Seydina Omar laan bi kunwure wa dem na këng waxi mag dem na ndañ taali ay waay lu waay doon jaay tey mu lambu tey la tey campagne électorale bi dagaan baatu askan wi ci jongante gox goxaat yi tey ci samedi ji la tàmbali ci Sénégal gépp lii yéen kaay ñu ko xamal ñetti junne ak ñaar téeméer liste ñoo ci xam juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett ci ay commune yu ñuy xëccoo laas yéen kaay ba tàkk na de fukki fan ak juróom yu tàng jir moo nar am ci campagne ne waaye diiwaan yi nga xam na ne moo gën a nar a métti moo gën a nar a tàng saf sàpp xëccoo ba ma wax leen yan diiwaan la diiwaanu Kaolack ndangaan Benno Bokk Yaakaar Pape Demba Bitèye Mohamed Ndiaye Rahma ca Benno Bokk Yaakaar ba ca beneen boor ba ànd nawle Serigne Mboup Ben Jelum Rose Wardini Pape Simaxa Fadel Baro Ndeye Khady Diop Maodo Lo waa yeewi askan wi xëccoo bu nar a métti élection yu saf sàpp moo nar am Kaolack ndangaan ba tey yéen a kaay du Kaolack rek de Ndakaaru Ndiaye fa nar a saf sàpp diiwaanu Ziguinchor xëccoo bu nar a neex diiwaanu Kolda ba ca Tiwaawoon Ndar candidat yi bëri nañ xëccoo a saf lépp nag ñu def ko ci jàmm ak salaam le 23 janvier kuñ mbuqi nga fori new ki xam ndam ñu félicité ko l'observateur ne ay campagne bi door na de parti yi nag ak coalition yi xam nga nan lañ nara a e yow seetal ay mitin yu mag te rëy ay karawaan yu gudd visite de proximité waaye yeewi askan wi ñoom diwaanu Casamance fa la ñuy dooree seen campagne bi la soleil yéen a kaay ne hee nañ moytu nag gis nga campagne bi nekkul lu neex waaye wax mu def de code bi am mécénat yi ña ngi koy leeral ba tey yéen kaay bi àdduna ci parti politique yi fi ñu jëlee seen xaalis bi ñu campagne enquête yéen kaay ne waaye campagne ren bii man faa seetlu ne coalition yi ak parti li ñuy wax proximité dem ci askan wi dugg seen kër yi porte à porte waxtaan ñoom moom lañ gën a fulaal coalition yu bëri noonu la ñuy def ren ci campagne bi suñ bëggee gagné Moussa Diaw jàngalekat yi ñuy def ci mitin yi taxul nit ñi génn dem woteel la déedéet su fekkee fa ngaa bëgg li nga ñu tànn la woteel la xam nga nooy def fa ngay ci këru nit ñi grand dugg seen biir kër yi porte à porte mooy affaire bi de waaye mitin yi ko ci topp fa ngay fori de wal fajri yéene kaay ne campagne bi tàmbali xam nga man lan laa ko jàppee fuwaaru dige moo tàmbali rek maanaam politiciens yi fa ñuy dem ci askan wi di leen dig su ma falee maire faa leen di defal lii faa leen di defal laa dige yu du xaddu jeex te ñaareel ya ci gën a bëri suñ faloo c'est fini intaha dara lañ ci du def fa ñu nax askan wi Diouf mais élection yii fa nar a jur beneen Dakar bu bees yow seetal oh. man Diouf Sarr man rek maay candidat bu joxe programme am pour Dakar suñ ko falee te programme bi maa ngi ko tuddee Dakar bu bees Amadou Ba te Dakar Times na ko kon man yow laay woteel Diouf saar mel ni ku naan ko Amadou fii man rek maa fi nekk di pour dakaar gi gisuma fi benn adversaire bu garaaw boo xam ne mën na maa jaaxal bu nekk sama kanam kon man faay mbuqi gaañi si du quotidien na ko Rose moom Ndakaaru lay tàmbale tey Doudou Wade tamit fay amal proximité dugg ci askan wi Diouf Sarr tey yëngu bés ba a juróom benn fan ci weeru février benn weer boo xam ne fa jogante football xëccoo kan moo jël coupe bi nag waxuma la jël coupe bi waaye buñ demee rek final gaynde yi danañ leen jox juróom-ñetti téeméeri million ak fukk ñaar ci ay prime record yéen ñu ko xamal la mu ba xëy di ko laajte moom sunu làmb yéen mooy xana lan moo dal Balla Gaye 2 ayow ah, koo xam ne ndaanaan nga woon fi mu nii muus mu naan diwlin sax moo la tane Balla Gaye muy bëre kenn xamul muy niru faragal fañ koy mbuqi fay daw ñëmut a bëre yéen a lan moo xew lu ko dal man ma dal ci vox populi fekk fa xurum xaax moo ñam handal fa ñoo jël drapeau góor jigéen ñi dem ba ca buntu assemblée nationale ñu kos almet taal ko takk dara teg leen loxo juróom-ñetti nit leen woon waaye mujj nañ leen a a général des mourides génnee na fatwa ba ñaawlu na moom xalifa bi képp kuy dooleel góor jigéen libération ne xalifa bi kay nee na ngóor jigéen lu bon la lu xaraam la mooy yàlla gu bon a bon la kenn waru koo def wala ngay jàppale ko koy def baaxut santul yàlla ci la solo yéen a kaay xalifa général des mourides nee na ngóor jigéen moo gën a bon sax njaalo diggante góor ak jigéen ndax lee góor ak góor la fa bon critique yéen a kaay ne xalifa bi kay nee na lii crime la sax ci doomu aadama les si ko yéen a kaay ne dëkk bu sell ba Tuubaa waneeti nañ seen bopp njàmbaar ci taxaw diina l'islam ndax wax nañ ñaawlu nañ li ñàkk def ngóor jigéen ak Karim ba tax ba fa dóor loxoom ca taabal ba ngir ñaawlu li ni mel léeg ko yéen a kaay ko xamal info yéen a kaay ne Touba nee nañu ñoo ngi ñaawlu képp koo xamante ne yaa ngi jàppale ngóor jigéen te ñu ngi jàppale mboolem jullit boo xam ne yaa ngi taxaw ci luy deltuloo ginnaaw ngóor jigéen te ñu ngi encouragé tamit képp koo xam ne fa ngay xeex ngóor jigéen te ñu ngi ñaawlu képp ku leen di jàppale le mandat yéen a kaay na ko sang bi mbàkke laam-laamee goo xam ne képp ku ko dégg euh, euh, a kaay yi Choukran El Hadji Oumar ponk boobee sax nag mooy waaye nag xabaar yi day wéy jamono bu ne ci 3w point radio alfayda point net jaajëfal nañu leen yéen ñi faxe woon ci wàllum déglu gi jaajëfal El Hadji Libaas Mbay ci wàllum xarale gi ak it waa rédaction ci njàppandal gi waaye laata ma yëkkati jotaay bi ma fàttali rek li ci gën a fës bokkoon na ci li gën a fës ci xibaar yi décret bi nga xamante ne nag moo daal di tënk lii di njaayum gerte fii ci Sénégal faw rek ñu yeesalaat ko waaye tamit daal di koy méngale ak jamono bu ñu nag bëggee ñoŋal wàllum njënd meek njaayum gerte gi lu ni Mamadou Diagne Fada directeur général bu Sonacos moo ko xamle amoon ngeen yaatal gi ci biir xibaar yi gannaaw yokkuteefu kaawu coronavirus yi mu soxal nag variant bii di Omicron collectif de développement sanitaire yi jamono ji ña ngay artu tey sàkku rek ci askan wi ñu jël daal seen i matukaay dem nañu nag bay wax ne bu ko laajee ñu daal di soppi rek anam ba ñuy campagne mbaa sax ñu dàq élection yi ba jëmmi eh, jamono ci jamono joo xamee ni itam nag ñoo ngi dëgmal Euh, naw de mere nañu lool rek sous préfet bu arrondissement bu euh, Mbadakhoune nee nañu nag bu ñu bokkul ci élection yi moom la loolu itam amoon ngeen yaatal gi ci biir euh, xibaar yi di li lépp yembe mbokk yi tegoon nañ ci seen rubrique jàngandoo ci beneen anam toftal ca xabaaru bitim réew tàggat yaram ak li yéenekaay yi xëy tey jii wéy leen di ànd ak suñuy programme ñaanal nañu leen mucc ak muccule jàmmi biir ak biti taw féex ak tey siir jàngeen jëfati Le journal Ngoné Ndiaye Reine